channel ñi baaxee saa su nekk di ñu déglu tey dañoo ñëw la 14 jot na tey dafa mel ni tey bis bi ñëpp doon xaar benn braak yëmbal Fass Mbao tey la maa ngi dajeeg benn grand bu aay muy yéeg sur scène toj fa def fi lu nice bëgg a xam moom mooy gan. asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu waa télé bi yéen ñi ngi seetaan à travers di Africa. Afrique waaw mu ngi noonu waaw euh, maa ngi tudd Miss Salaba dëkk Yëmbal euh, di artiste euh, di compositeur di guitariste waaw ci loolu laa nekk ni daal di yëngu. ok su ma xoolee bu baax bokk nga ci artistes yi signé def Wareef Records. waaw waaw sa relation ak Ndingato ba nga teewal ko ak naka nga gisee concert bi tey. waaw too bi ñu amee ne yàgg na mais dama ko xam ci ci sincérité dama ko xam ci bëgg li muy def dama ko xam ci fulla fayda moo waral euh, lii demee nii parce que artiste la bi def wareef <coughs> bokk na moom ci ñi label bi euh, produire génne albumam tandis que man maa ngi ci biir def wareef mais sama album génnagul mais ci liggéeyam ci xarañteem njàmbaaram moo tax gars yi jël ko euh, mu nekk deuxième personne boo xamante ni je pense que label bi signé na ko mais lépp rek ci moom la quoi kon seede bi rafet na gëm naa ne loolu nekk lu bees loo xam ne maa ngi koy dégg nga yéeg sur scène nga def prestation bu dóob ku la bëgg a suivre sur Instagram wala sur fan naka la naka nga leen di wax yaw daal yow yaay kan. ok d' accord ku ma bëgg a suivre da ngay dem ci page Def Wareef Record Mister Laba euh, wala soit nga dem YouTube Mister Laba di nga fay gis sama vidéo quoi. ok Mister Laba maa ngi lay remercier di la encourager davantage merci beaucoup.